am kontante ak mbégte ci bis bi nga xam ne moom la ñuy wax tey nekk le 20 mai ñu daje fii ngir 46 départements yi am Sénégal 133 arrondissements yi 14 régions yi 557 communes yi nga xam ne am na biir Sénégal bi yëpp boole seeni kaddu ak seen yéene. jël jëmm ji xeebu bi tabb ko ne moom tey lañ jagleel parti bi ñu xam ne moom la yox ADS muy alliance pour la développement du Sénégal Sénégal nag benn jafe-jafe moo fi nekk mooy tànn ndax képp koo xam ne jug na pour bëgg jiita senegal Sénégal nañ ko laaj lan la defal Sénégal ba noppi doog a laaj Sénégal ndax dañ ñoo jël jaañu tubaab yi ba tey or bii nga dégg tey ñu koy ñu koy ŋàcc di yóbbu amul benn sénégalais boo xam ne sanguwu si sëlmoo te ñaata at léegi ñu bëgg ñoo imposer ni na pétrole bi génn kon pétrole bi noonu lay demaatee ñun ADS nag dinañ créer ay système boo xam ne dinañ ko teg suñu diggante ak bépp dëkk boo xam ne frontière nañ ak moom matière brute dootuñu ko jëlati du nangu muy jóge Sénégal di dem ci beneen dëkk ndax néew xam-xam weesul or brut nga koy joxe néew xam-xam weesul ñu bëgg laa nax ci wàllum pétrole brut nga koy joxe ndax loolu da ngay créer ay usines de transformation créer ay zone industrie su ko defee installé ñi nga xam ne ay bailleur lañ ne ci réew mi nga yokk leen doole ñu mën a sanc ay ay société ay entreprise su ko defee matière bu nekk nga mun koy investir sa dëkk bépp dëkk boo xam ne soxla na nga mën a fexe def ak moom système partenariat. su ko defee comme noonu mu demee ci pétrole bi noonu la demee ci bépp matière bu fi nekk ñun ADS pare nañ pour accompagner leen ci loolu ba sunu moomeelu bopp ñun ñu mën ko jël ba duñ jéggaane ci dara. pare nañ tamit si nitu daara yi nga xam ne tey bu ñu wax Sénégal quatre-vingt-dix-sept pour cent musulmans te tey su ne nitu daara yi yeneen réew ñoo bu ñu soxlaan dimbal ñoo leen di dimbali ay ONG ñoo jóge si dëkk yi di dimbali sunu sunu nitu daara yi kon ndimbal boobu ab noteel la boo xam ne suba luñ la teg doo ko sañ bañ ñu dem ba gëmloo nit ñi ni nitu diina warul politique ndax xam nañ ni politique dëgg képp ku gëmul yàlla waru ko def ndax fa ñuy nasee di noccee muy assemblée bi ku gëmul yàlla waru fa toog ndax bépp loi buy daganal ak di xaraamal fa lañ koy nasee kon lan lañuy def mooy nañ fexee salteel politique bi xasanteeg saagante ba képp ku fa nar a jóge nit diina rek ñun ñu xamal la ni politique dafa salt nga nga dellu ginnaaw soo amee ay cant ba programme yëg seen enveloppe ñëw jox la waaye lu ñuy dogal bu ci am xalaat loolu day dakk beneen bi mooy sunu constitution bi fi nekk nga xam ne amul benn réew booy dem ci àdduna lu dul ni seen constitution day méngoo ak seen culture bopp dëkk ba mu def senegal beneen bi mais les sages amul kenn ku mën a toog fii koo xam ne mun na ma tuddal si limu kenn ni kii Soussagy la bokk moo xam turam amul loolu Sénégal rek la xew te yi ñooy ñi nga xam ne luñ lépp lu ñu dogal Sénégal loolay am mais amul benn mbindeef Sénégal ku ma mën a tuddal turu kenn loolu moo njëkk a nekk danger ci réew mi te loolu day dakk dinañ fexe ba suñuy Soussagy ñu tànn leen si suñuy nitu réew ñu xam ñan lañ xam bu ñuy jiite ci lan lañuy jiite dinañ fexe ba sëriñ daara yi mën a am seeni salaire ñi leen di subventionné comme ni ñuy subventionné moderne bi dinañ fexe ba diine bu mu mën a doon Sénégal muy diine chrétien muy diine musulman ñu mën a gis seen bopp waaye rawatina diine musulman ndax tey ku ci am jafe-jafe daara yi ngay dem ñu ñaanal la te boo leen jekkoo toog seen kaw. loolu day dakk dinañ fexe tamit ba saytu suñu wàllum santé bi ndax gis nañ ni chaque at ñi ngi voté budget santé waaye li sante di génnee ba tey mosoo dégg ku ko tudd tey sénégalais feebar dem benn opérateur ñu faj ko daar daar loolu yaakaar naa ne amul si réew mi il faut ñu jaarale la lu mu lu mu néew néew ñetti ñetti lu tax ñu tabaxal ñu ay hôpital te duñ ci fajoo ku ci feebar dem dem bitim réew kon xanaa liñ ñu defal baaxul lan moo tax nit bu manqué alal duñ ko nangoo jël en charge kon dinañ fexe ci ressources yi nga xam ne am nañ ko muy or bi ak yeneen mu mën a garanti suñuy sante or bi garanti suñu alal ndax dëkk yi seen alal ñoom yëpp. seeni or ak ressources yi si moom lañ kenn garanté waaye ñun système bi ñu def ñun dañ ñoo tayle tayle suñu moomeel ñu fexe tamit jigéen ñi ñu mën leen a jàppale ba ñoom ñu mën a am si lu ñu jàpp te dinañ fexe façon boo xam ne bépp handicapé ndax handicap les personnes handicap bu ñuy wax handicapé du si ay cër waaye ci xel la ndax ay njiit yu handicapé moo ñu indil jafe-jafe yi ñuy dund waaye ñi seen cër manqué tey tata yi ngeen seen muy dem dëkk yi muy société yi muy entreprise yi pointeur yi ñooñ foofu place handicapé yi la naka lañ nekkee ci réew mi nekk fi pour cent ñu bëgg leen a digal ni dee leen gën di tàllal loxo di leen ko tere te ñun suñu njiit yëpp dañuy wër di tàllal loxo lan lay def lebi ji te am ressource boo xam ne mën nga dundal Afrique te dund yëpp ci leb nga ko yaakaar kon yii bokk na ci programme yi nga xam ne moom la ADS préparé ngir askanam ndax askanu senegal dañoo sonn beneen bi mooy sénégalais yi yéen yi ñëpp ay prisonniers ngeen lan moo tax bépp dëkk boo xam ne da ngeen toll ak moom doole kenn autorisé wu leen ngeen dem fa yan dëkk lañ leen jox autorisation mooy dëkk yi nga xam ne yéen a ko ëpp doole mooy dëkk yi nekk nekk ci wet yi duñ tudd tur waaye dëkk boo xam ne moo mook sénégalais tolloo doole jaaral fii defal fii boo ñaanee visa duñu la may boo bur la ñu jàppe la indil lay jafe-jafe kon ay prisonniers lañ dinañ fexe ba ñoom ni ñuy ñëwee sunu réew mu yomb ñun bu ñu bëggee dem seen réew yi noonu lay yombee lu ko may kenn ku nekk téye la nga am dinañ fexe tamit ba bëgg nañ am yéene bu rafet waaye itam sunu doom yi nga xam ne ak sunu mbokk yi nekk ci bitim réew nga xam ne tey ku jënd arme sax di ko di ko essayer ci sénégalais nga koy essayer te doo doo gis benn intervention te yéen xam ngeen li fekk li fi passé muy batalo Joola benn français moo ci dee waa France dañ ne nañ leen jox suñu premier ministre ñu tëj ko boobu jamono joo maam Maajo Booy moo nekk premier ministre ndax seen benn doomu réew war ta dee ci beneen réew te batala joolaa ñaata nit lañ deele ñu ne nañ leen jox suñu premier ministre ñu tëj ko waa tey ñaata sénégalais ñooy dee bitim réew te déggoo kenn ku ci wax kon yii dinañ fexe ba rek la ko fexe tamit ba ak ak yelleefu doomu aadama yi fi nekk muy sunu justice ñu def ko regle ko regle boo xam ne kenn ku si nekk dina mën a dox liggéeyam ci ni mu gën a waree te kenn du la corrompre waaye itam kenn du la indil jafe-jafe waaye itam nga am salaire yu doy yoo xam ne dina la mën a dimbali ba yow di nga mën a sa liggéey si nu mu waree beneen biit bëgg nañ créer ëllëg prisonniers yi ñu leen jël di leen tëj tëj nit fukki at. amul amul métier ay waajuram ra génn àdduna si ginnaawam li mu demoon lépp mu ñàkk ko nga xëy libéré ko sànni ko askan bi ñooñu ñooy dem amuñu métier ñooñu ñooy yàq suñuy institution benn sunuy moomeel ñooñu ñooy jaawale li ñu moom ak liñ bokkal nit ñi ak si liñ leen boole waaye ñooñu ñooy dëkk si di dundal benn nit boo xam ne du Sénégal waaye nag di tardé seen bopp tey jii cinq cent mille jeunes bu kenn ku nekk di xëyee di dem fii ñuy wax Paris foot damay jaar ci tour bi journée bi cent cinquante millions la semaine bi un milliard cinquante millions weer bi quatre milliards deux cent millions cinq cent mille jeunes bu kenn ku nekk di xëyee di jënd chaque jour trois cent francs Paris foot weer bi quatre milliards deux cent millions la kan moo ko moom benn naar boo xam du sénégalais lan lay def jël na suñu alal waaye yàq na suñu jikkoy ndaw léegi loolu fatu kan la tey ban sénégalais ngeen xam fii ñu ne société bu mag bii kii ko moom doomu sénégal la doomu sénégalais buy xëccoo keneen ku dul doomu sénégalais doomu sénégalais day ñàkk xool leen tey Serigne Moustapha Saliou bi muy xëccoo ak usine Dangote kan moo ñàkk sëñ Moussa Saliou a ñàkk ndax lan kon nañ xam ni sunu njàng mi ak sunu njàngale mi dinañ changer système bi ñuy jàngalee sunuy doomu réew ndax jàng ba ba ba toll niveau bac ñu ne la léegi nag sa xel mi dara nekkutu si leneen ngay def ñun la léegi da nga dem université ndax am nga bac boo amee doctorat am lépp lan ngay def dawali jakarta lañ ngay def tey jii xoolal tey système bi ñuy naxee nit ñi di jël ay jakarta di ko jox ndaw ñi kon système boobu li ëpp doole mooy ñu fexe ba créer ay usine yu doy banc public yi ñuy tabaxal jeunes yi pour ñuy gën a toog tabaxal leen ko ay usine ñuy liggéey moo gën ñuy gën a toog kon lii mooy benn ci li nga xam ne indoon nañ ko ci discours bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci làkk bi nga xam ne moom lañ dégg ñun ñëpp ndax làkk bi moom lañ bëggoon bis bi ñu toogee ñu yitteel sunu làkk bi ñuy làkk ndax réew moo gis ci àdduna làkk bu ëpp doole ci dëkkam lay làkk kon lii it bokk na tamit ci li nga xam ne mooy programme bi ñuy def beneen biit ñuy woote ci jàmm ñuy woote ci jàmm pour Sénégal yëpp ñu xam ne tey boo gaañee sa nawle suba yaay dem jaale ji ko kon ñu ñëpp ay sénégalais lañ bu kenn jaral kenn muy saaga kenn baa muy xeex kenn baa mu yàqal kenn ndax ñu ñoo moom dëkk bi ñu ñoo ko mën a defar bu dul dara. bu ñu rus politiciens yi mais nañu rus rus suñu kilifa yi ADS ànd defar Sénégal ñoom ñoo ñëw investir ma pour sama candidature pour élection présidentielle 2024 ci congrès bi bi nga xam ne moom lañ moom lañu woote waaye plus déclaration candidature congrès la plus déclaration candidature kon ginnaaw bi ñu ma tabbee ba noppi tey def maa ngi def sama déclaration pour wax sénégalais yëpp ni jongante yi jëm 2024 noppi nañ pare nañ pour bokk ci jongante yi 2024 ngir jël ko liggéey Sénégal. troisième mandat euh, dafa am loo xam ne man li may faral di wax mooy ñun foog demuñu ba jël suñu constitution bi ñu bokk. boole si loo xam ne day méngoo suñu culture dëkk bi duñ problème yi duñ fi jóge ba mukk ndax article bu ñu teg am na article bu ñu dugal si si tural buñ gisul lu ñu xam ñu génnee boobu mu défendre leen buñ paree ñu dencuwaat ko moo tax chaque jour da ngay gis ñoo xam ne jàng nañ droit nga introduire leen si télé yi ñuy am ay werante troisième mandat nag man li may wax mooy ñun ay sénégalais lañ te Sénégal. ku ne xam ni nit ñu am ngor am jom ñoom ñoo fi nekk man dama ne ndénkaane du alal bu fekkee ay nit ñoo boole seeni kàddu lépp na la yow lañ yaakaar jox nañ la dénk nañ la nit ñooñu buñ demee ba na doyal na doyal nañ donta constitution yi lépp wax na ko kon yow amal ngoru delloo lañ la joxoon